muy tey bu mu jugee foofu muy vingt trois pour dem dem euh, liberté quatre pour xam man li tax ma sawar ci ay mbiram dafa am lu bëri dama ko fekkee parce que man nit mënu mën a nawee lu dul ci wàll yi mënu mën a nawee lu dul ci famille te nit balaa muy def fenn nga xam ko bu tënoon ak si li nga xam ne bëriwul sama yaay mi ngi dund yaay boobu yàlla baax boo xoolee famille bi boobu yaay mi ngi dund boobu da nga dara doxul mais ndax mën naa ko yooyu yëpp da nga ko fekkee moom alkaar macha allah redresser sa famille taw bokk ci taw bokk ci la famille tey dafa yi ngay dégg ni docteur Abdou avant mu ko def ñu ngi ko tàmbalee ci kër maa lay commencé ci bari boobu pour di xew sax dugg sax ci politique looloo ko di fréquenté ci kër boobu xale bi kii ñaata la am kala ñaata la am. maa ngi quinze ans ko xamee wu. ndax ndax mën naa ko mooy dafa am mission ñu taaw kooku ñu taaw waaye yàlla mën nañu leen a chargé rek saa yi ba pare ñu accepté nangu ko. li may dëkk. ñu ko famille gërëmee sant ko gërëm. noonu la ko tout tànk yëpp quatre vingt bu pour cent gauche yi fa nekk doon kii woo yëpp ci nekk am na fu doon casé pour nga nga surtout pour surtout sa njaboot. moo tax bi ma wooyee sànq ma def fii daf ma bëgg a jaale day na ko balaa jógee léegi sama tey mais dafa ma ci kër gi balaa nit ñi di tasaaroo ma noonu foog dafa amoon fu mu toll ci man. Hmm, bu ko nekk daa expliqué ma détail yëpp. ma ne ko doo ñëwal. Hmm, j'ai insisté ak pandémie bi ak xam nga. ma damay ñëw foog ma ñëw. waaw par exemple dañu doon tànn bu kër yi. ba rafet naa jóge sama kër parce que ñu laa jógee. lu fi jógee rek mu woo. nga xam ne nit ku am fleur mi ngi di bu baax. nit ku jàppale quartier bi. boo nee Aliou. bi Liberté 4. loolu mooy mooy mooy diw. boobu bu ñëwee fii ñu jaaree suñu papa léegi jàppal danaan wax kii kii ban nit ban technique ak importance ak impact bi au niveau de l'État kon si ñëw bi nga ñëw fii yal ko yàlla ful mu nekk ay yaa ko parce que am na loo wax dañ naan politique politique politique àddina lépp politique. adduna lépp politique la tey da nga waree dugg yonent bi bi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na fu mu tolloon ci ci jàmmarloo ak ñi nga xam ne bëgg na dugg ci diine yàlla daf noo daf noo ko politique ak ñoom anam am na fu affaire fu mu toll boobu xeex amatul jihaad jeex na bi mu demee ba affaire yi dëgër mu ne la la comme diine ko wala diine ku nekk na nga yem si diine waaye politique àddina lépp politique tey pour sa famille boo xam ne dafay yëngu sax famille moo xam ñëpp bokk nawet bàyyi sax jàmm mënu fa am il faut que boo xam ne c'est un fédérateur quelqu'un boo xam ne esprit bu baax la am esprit bu sain mooy dem calaw sa mag la sa rakk la kat ni nga ko war a jàppee yàlla moo leen boole loolu boobu soo amul fasaaxa xam xamu ijaaba mënoo ko ci quoi de moo tax euh, métier bu noble la. te am na loo xam ne pour nga def ci doomu aadama il nekk quelqu'un de très sympa envers les gens am na yenn fasaaxa yoo xam ne yàlla bu ko defal ci yow mënoo mënoo mënoo moo tax grand yàlla na yàlla defal jàmm sàmm la aar la lii ci barke Alxuraan yaa xam ne nga bëgg ci bopp wàll yàlla na ci yàlla may ndam daal kii daal sa doon une personne boo xam ne yàlla tax ma gën ko jàpp mooy grande sœur di Mara bi may wax ci moom fi mu ko jàppale ak fi mu ko teg mooy yaayu booy bi boobu nekk bu sax ci moom bu ñu ko yóbbu màkk moom maa ngi leen ko wax te boobu dem màkk yomb moo tax daal yàlla yàlla defal ah. jigéen ñu baax yi nga àndal. dañ naan góor moom buy def te àndul ak ay ay jigéen newul ci wet bi dara wóor ci. waaw moo tax ñu ngi jaay defal jàmm seen seen yi yàlla yàlla defal jàmm. ñu ci kàddu gi. ah

Dame Ndiaye di def 3. ñëpp ay liggéey nañ ko. jël yàgg. dama jàppale bu baax a baax. macha allah ma jot suñu jóg ànd ak. macha allah macha allah. léegi il faut ajouter moom rek moom moo teewtoo tey ministre de la femme Mariama Sarr ñëw ci montage comité moom rek moom chance boobu macha allah. donc kii nag moom kii mooy kii yéen a ba ñu bokk tarixa moom ab taalibe bi sax boo nee seen kaaw ba dara moo ñu moom day daanu leer boo gisee loolu kii dafa am responsabilité bu mu yor ah. dama am xarit bu neex a ci moom pëlëri lu wax dama topp bu doon ma déggee topp rek sax mu moo ne topp de mère de sac mais bokk ci topp bari wuñu de waaw sant bu laat sama politique dafay laaj nit ñaan ñaan yi ñaan baax a trop nga fexe ba am nit daal day am solo nag fi lañ dëkk te moom mi dëkk ba liberté kat dañ fay kóllëre liberté kat Pape jiitu benn kii ma ko promotion doomam doomam kii moo ko gis kon dina yomb am ñu bëree bëri yoo xam ne xam naa ne foofu liggéey. Ah, ah, ah. bokk promotion moom moom moom mag moom la promotion. donc moo nekkoon moo nekkoon gaaw kor. ah ok moo ñu dëkk. moo ñu dëkk. waaw waaw waaw. dañ si delluwaay dañ jëloon fi ay pexe. pour gars yi ñuy kat ci biir biir. incha allah incha allah. опять видео бибига. Бабай. Да. Thank you.